waaw dañoo content rek puisque man conseiller départemental laa woon mais il fallait que ma démissionne léegi léegi puisque mënuma am trois mandats électifs dañu content rek puisque comme euh, département de Matam ñun ñëpp dañoo discuter ñu tombé accord loolu moo tax temps bi ñu fii ñëwee amul benn problème vraiment gars yi woote nañu lu mu waroon wootee ñoom ñëpp woote nañ ko dañu ci content rek. Euh, déroulement vote bi ça s'est très bien passé kooku amul benn problème amul ben problème et pour amul ben contestation vraiment ñun ñëpp dañu kontaan voilà ah légui nak ma wax naa cohésion lañu ñu ñom ñom euh, conseiller départemental lui, fii amul ko amul benno amul buntu bi amul dara ñom ñëpp ay ay conseiller départemental lañ départemental lañ dañu ñëw fi pour euh, représenter le département ñom ñom ñom ñëpp nañu nañu nañu nañu qu'il se ressent ñoom ñëpp nañu jàppante ñu nekk benn nit ñu nekk fii pour liggéey département bi loolu rek moo am solo surtout